tribunal bu grande instance bu Ziguinchor euh, dafa casser la décision relative à la radiation euh, de Ousmane Sonko euh, l'information officielle c'est que dañ ko radié woon parce que dañu ko condamné par par contumace donc tribunal bi casser ko yaakaar juddu chez les partisans de Ousmane de Ousmane Sonko ñu jàpp ne la justice a été rendue et bien rendue et d'ailleurs le juge Sabali Faye est sorti de de, de l'anonymat euh, tout le monde loue son loue son son son, son courage euh, tout le monde loue son sens de de, de l'équité euh, vous avez été yéen en tant au niveau de l'État et en tant que politique vous avez été surpris par cette euh, par cette décision surpris et pris de court en tout cas seen agence judiciaire bi il l'était oui donc euh, bon euh, c'est vrai que ces temps-ci peut-être ak élection présidentielle bi ñu jëm fait qu'effectivement la procédure euh, la en fait le, le monde judiciaire la justice est, trop, est beaucoup sollicitée. Ah, euh, si question yoo xam ne question politique la. donc euh, gis nañu ne vraiment temps yi yëpp bëri na depuis presque quelques mois six huit mois bëri na feuilleton judiciaire yoo xamante ne peut-être installé installé intéressé na sénégalais yi bu baax a baax et muy lu muy li ñu rafetlu aussi. parce que la justice on l'a décrit dañu bés bu nag ñu ne Sénégal amul justice Sénégal Sénégal ñu ŋàññ Euh, justice bi te pourtant bés nekk ñu dellu ci justice bi. nga faral di dégg yenn commentateur yi naan Sénégal nous n'avons pas plus que la justice justice lañu am dii lañu am donc dañ koy nangu sàmm ko dooleel ko éviter aussi di ko ŋàññ fekkee arrangé na la nga tàccu mais Sénégal état de droit magistrat courageux di wax lu la neex di féliciter la justice sénégalaise alors bu ñu rendre décision défavorable rek nga ne voilà c' est des magistrats qui sont manipulés qui pas indépendants qui sont sous tutelle du ministre de la justice et cetera loolu dañ ko faral di gis Sénégal moo tax aussi di am li xew nii. parce que Sénégal dafa nekk di am benn tournant bu am solo vraiment ma bëggoon ñëpp taxaw ci taxaw ci quoi taxaw ci. réfléchir mais vous pouvez faire la leçon euh, à l'opposition bi nga xam ne dafay récuser di ŋàññi souvent. Euh, la la la justice on se rappelle euh, procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang première instance euh, ñu juge bi joxe verdict am ñu dem ñu ne juge bi il est de Pastef dem génneel ko ay ay ay ay post sur Facebook wax ko lu ne l'agence judiciaire de l'État j'ai j'ai même été étonné d'apprendre qu'il était procureur qu'il qu'il fut procureur l'agence judiciaire de l'État son collègue joxe un verdict mu ne kooku Euh, dafa am dafa bokk ak koo xam ne euh, il travaille avec Ousmane Sonko ŋàññ ko ba euh, bind lettre pour récuser ko au niveau de la de la cour d'appel est-ce que vous êtes à l'aise pour donner des leçons à ces gens-là aussi qui critiquent la justice et peut-être qui critiquent la justice selon leur ressenti waaw xam nga may mën a dafa fokk ñu loo xam loo xam ñoo foo ñu d'accord ci c'est-à-dire que dans dans ce pays fokk ñu d'accord que c'est justice bii la ñu am quelle que la décision qui est rendue. waaw mais est-ce que je que j'ai maa ngi ñëw pour pour faire la leçon à ces gens la décision de justice mun nga ko commenter parce que foo ñu xam aussi agent judiciaire de l'État il représente les intérêts de l'État donc c'est une partie au procès comme comme comme toute autre partie donc am na droit aussi moom am appréciation si décision bu ñu rendre am na avis bi am na avis bi mun mun joxe ci ci décision bi loolu c'est loolu c'est comme comme tout le monde mun nga commentaire def le commentaire de la décision mais par contre ce qui est interdit c' dans def def def def de wax loo xamante ne euh, méngoowul ak li la réalité wala wax loo xamante ne juste pour ŋaññ l' institution judiciaire. mais justement c' est ce qu'il a fait xam nga non il n'a pas fait ça. non non ce qu'il a fait parce que li xew li xew quand il doute euh, de la procédure ba mu dem di récuser juge bi euh, et puis muy invoquer des liens de de de comme si c'était devenu un délit. euh, d'être apparenté à un juge ou c'était un délit pour un juge euh, d'être apparenté à un homme politique. Attention, attention Maimouna. Ah? Attention. C'est ce qu'il a fait. Juger. Il faut que ñu xam aussi justice naka lay doxe su nga dans la justice, peut-être même dans des magistrats. Dans le statut, il est clairement dit qu'un magistrat, il juge selon la loi, selon sa conscience et il est interdit interdit de trancher ou de juger un litige en fonction d'intérêts. C'est interdit clairement dans le statut des magistrats qui s'applique à tous les magistrats de ce pays. Maintenant, vous allez voir, vous parcourez tout la, la, le code de procédure euh, civile, par exemple, même le code pénal, beaucoup de codes, dañuy reprendre dañuy énumérer plusieurs cas de figure yoo xamante ne le magistrat dafa war a désister wu dafa war récuser boppam wala dafa war ce qu'on appelle la clause de conscience la cause de dafa am dafa am ci justice même un avocat avocat c'est il est libre mais munoo défendre n'importe qui nga am la clause de conscience un magistrat munoo juger n'importe quel dossier Alors, il est même interdit ma ñëw ma ñu expliquer mu leer il est même interdit dans la composition d'un d'une juridiction moo am des frères wala yow magistra ngay àtte avocat bi nekk sa famille c'est interdit c'est interdit donc bu fekkee nag léegi parce que souvent dañu naan woy dossier dossier Ziguinchor bi lan moo xew Ziguinchor parce que c'est important ñu xam lan moo xew Ziguinchor non non xaaral xaaral mais sauf que dans ce cas-ci le Saliou Faye hmm? s'il est avéré hmm? qu'il est le frère du juge Sabassi Faye il n'est parti au procès. Ah, foog foog nga juumee. non il n'est pas parti comment il n'est pas parti au procès. cest à bi euh, dañu la naan quand c'est un membre de ta famille quand le conflit d'intérêt il est il est il est il est il est, il est avéré mais Saliou Faye yoonam nekkul ci procès donc d'ailleurs ils ont bien fait de rappeler l'exemple Cheikh Tidiane Koulibaly Abdou Latif donc est-ce que dañoo est ci seen principe est-ce que tamit on n'est pas en droit de douter ou de récuser euh, tous les actes de de de, jugement. yi nga xam ne Cheikh Tidiane Koulibaly moo si statué. parce que y a un conflit il, il peut y avoir un conflit d'intérêt je ne dis pas que c'est le cas. Mm-hmm. il non, peut euh, ñu taxaw si tuuti bu ñu nee les parties au procès le droit c'est dynamique c'est pas seulement les textes le droit dafa am un esprit buy buy entourer les textes bu ànd ak textes yi c'est quoi l'esprit la moo tax ñu naan. Euh, parti au procès war leen war leen war leen bokk war la war la war leen même par alliance war leen bokk war leen am benn intérêt en commun pourquoi ñu wax loolu parce que justement dañuy xool war leen war leen am les mêmes avantages yi ngeen di tirer ci décision bi ci kii les partis les partis c'est pas seulement les deux personnes présentes loolu boo jàngee droit au sens littéral du terme lire les textes au sens littéral mun nga ne oui façon parti mooy les deux personnes qui sont présentes à l'audience moom mooy les partis nga parce que aujourd'hui est-ce que par exemple objectivement Ousmane Sonko c'est le maire de Ziguinchor tous les membres de l'ancien PASTEF ñoom ñëpp ils ont les mêmes intérêts que Ousmane Sonko. mais ndax maa ngi ñëw ndax xaaral rek maa ngi ñëw il n'est pas parti au procès xaaral maa ngi ñëw. xaaral maa ngi ñëw ils ont tous les mêmes intérêts ils veulent que ce leur candidat leur leur leader nekk candidat ils ont tous les mêmes intérêts le maire de Ziguinchor qui est membre du bureau municipal ses adjoints yu mu bokkal bureau. ils ont tous les mêmes munoo munoo ma ne ils ont des intérêts différents un adjoint au maire de Ziguinchor qui est Ousmane Sonko vous pensez qu'il n'a pas intérêt lui à ce que le juge de Ziguinchor annule reti décision wu DGE de ne pas faire participer Ousmane Sonko à l'élection évidemment que objectivement da nga naan effectivement a les mêmes que Ousmane Sonko et donc par déduction parce que droit droit noonu lay doxee en fait. et qu'est-ce que vous dañuy xool ma xaar ma pare. qu'est-ce que vous faites parce que pare xaar ma pare de la probité du juge. waaw xaar ma ñëw qu'est-ce que vous faites de son serment. qu'est-ce que vous faites euh, de de l'indépendance bi ngeen di clamer yéen Cheikh Tidiane Coulibaly bi muy nekk premier président de la cour euh, suprême Latif Coulibaly nekk frère nekk membre éminent du régime est-ce que on devait douter wala est-ce qu'on devait se douter Cheikh Tidiane Coulibaly. warul statuer parce que est le frère de de de Abdou Latif a intérêt à ce que les intérêts de l'État ou de Benno Bokk Yaakaar soient sauvegardés. waaw mais mais est-ce que c'est que en droit. il est même interdit il est même interdit. de manger ou de boire avec une partie avant l'audience c'est dans l'article 223 du code de procédure civile pour te dire que tey jii mënoo génne ne que l'adjoint au maire de Ousmane Sonko. n'a pas les mêmes intérêts que son frère c'est un ou bien que Ousmane Sonko c'est pas possible il est parti par ricochet c'est une partie indirecte au procès parce qu'il a les mêmes intérêts donc droit boo koy xool dañ koy xool de manière dynamique doo lire juste des comme ça ça sert à rien le droit est dynamique donc boo xoolee foofu di nga xam ne effectivement le juge boo xam ne moom mooy yeewu même kër ak adjoint au maire Ousmane Sonko ils mangent ensemble ce par le texte 223 du code du évidemment il a les mêmes il, ne peut pas juger cette affaire il ne peut pas il est, il est euh, le coup même d'une sanction parce que c'est une faute disciplinaire. faute oui. il doit s'auto. Euh, l'AG a retiré la lettre de récusation. ce qu'il a fait ce que le juge a fait. Ah. parce que juge boobu mu ku mu munti doon parce que Sénégal quand même y a de on a c'est une clause de conscience. juge bi lu parce que non parce que moom lii moom war na jël. sur moom il délibère en waroon na jël waroon na jël sur moom comme le prévoit le statut statut des magistrats de se dessaisir de ce dossier comme comme le font tous les magistrats mais tous les jours. il va se décider je donne l'exemple je vous son frère n'est pas dans le procès son frère n'est pas impliqué. son frère son seul délit. c'est d'appartenir à Pastef. et donc tey au sein tey bépp magistrat bu am mbokku Pastef. waxuma la loolu de. bépp magistrat bu am frère buy militer Pastef. non ngeen bokk ndey ak baay. donc dañoo war a dañoo war a récuser ñooñu. ici son l'affaire se déroule à Ziguinchor où son frère est adjoint au maire de Ousmane Sonko Ousmane Sonko c'est ce sont des hommes politiques son frère est un homme membre du conseil municipal di politique biir Ziguinchor bëgg candidat am nekk ci liste yi ce frère ñu bokk ndey ak baay mënul juger affaire bi. dossier bi il devait se retirer sans sans même qu'on le lui demande parce que c'est c'est ce que prévoit le texte dafa war a désister wu parce que c'est une clause de conscience mun na ko mun na ko juger maintenant s'il la fait il outrepasse ses fonctions ses compétences il outrepasse ses pouvoirs en faisant cela le fait que agent judiciaire de l'État soulever cette euh, récusation peut-être que si instant jour boobu la ko xam ci en cours d'audience la la am information bi c'était un le juge bi une faute très en jugeant cette pourquoi vous parce pourquoi vous vous a pourquoi vous vous sur le parallélisme fait entre euh, Cheikh Tidiane Koulibaly et Abdou Latif Coulibaly pourquoi vous vous taisez. ah mais même le cas. du juge il il il non du juge Hippolyte Ndeye. ma ne la Latif Coulibaly voilà. oui Latif Coulibaly. qu'est-ce qu'est-ce qu'a fait il travaille à Dakar non xaaral Latif Coulibaly il travaille juridiction bi mu à Dakar il a eu à délibérer sur plusieurs euh, actes euh, yoo xam ne sa euh, concernait Benno Bokk Yaakaar ça concernait le gouvernement donc euh, ça non, concernait non. les de l'État du a noppi loolu il y a pas un dossier qui implique non sur ça, un dossier mais, mais ce dossier là n'implique pas Salif Faye directement non, y en le dossier n'implique pas Salif Faye mais léegi on va des exemples beaucoup plus précis ah juge Hippolyte Ndeye moom ak euh, ministre Victorine Ndeye ñu bokk Ndeye ak Baye waaw bu mu war a juger dans ce cas qu'est-ce qu'il a fait. c'est sa responsabilité il s'est retiré. moom la nekk parce que c'est la c'est la la pression. mais il aurait pu continuer xam nga. xam nga. rien ne l'empêchait man li may wax man xam-xam laay wax man waxuma loo xamante ne pour far wala bañ a far la. li ma gis li ma yàgg a gis dans les jurisprudences en France en ak fii au Sénégal de la pratique judiciaire mooy boo amee dossier bu mel noonu da ngay parce que loolu mooy loolu mooy pour éviter suspicion de de de, de l'impartialité de la justice parce que c'est important justice dafa war a impartial mais boo si amee suspicion loolu loolu c'est c'est une jurisprudence qui est établie avocat yow booy boo défendre sax mënoo défendre dossier boo xamante ne yow daf la jege trop wala sa sa clause de conscience may la ko nga nga nga kii ko sauf si on te l'impose. le ministre Malick Sall a été le ministre Malick Sall a été ministre de la justice. Mm-hmm. les gérants de l'entreprise Batimat am un problème judiciaire d'ailleurs un scandale judiciaire qui avait défrayé la chronique pourquoi Malick Sall démissionné wul parce qu'il a eu à gérer les intérêts de cette euh, euh de cette de cette de cette famille là son cabinet moo doon gérer les intérêts de cette de cette affaire là pendant qu'il était ministre de la justice son cabinet continuait à travailler. pourquoi non pour, d'accord quand on est ministre. mais il devait. c'est un conflit d'intérêt oui mais c'est un conflit non mais son cabinet si c'est un conflit d'intérêt il est le ministre la justice son cabinet a géré les affaires euh, de de cette famille là déglu ma déglu ma baax un un un avocat dès lors qu'il est nommé ministre c'est une incompatibilité il est suspendu de il du tableau des de de d'accord mais ba tey il y a un conflit d'intérêt bu nekk di dépendre. même s'il n'est plus en fonction. Ah. il n'a plus de droit de regard sur les dossiers il ne traite pas les dossiers il ne fait rien en rapport avec son cabinet. parce que il n'est plus avocat. il a un moyen il a un moyen de pression sur la justice en tant que patron de la chancellerie. Paris. C'est de la c'est subjectif. Et à l'époque, Yérim même l'avait l'avait souligné et ça fait partie peut-être des choses qui ont valu à à Cheikh Yérim Seck euh, nu mu tudd une une détention. C'est-à-dire li ngeen bëgg a wax noonu bu ñu ko gasee on ne s'en sortira pas Saba Saba si fay son frère Saliou Faye n'est pas concerné n'est pas parti au procès il est membre de PASTEF il est adjoint au maire bu ñu ci continuer ah juge yi récuser dina bari. non mais mun na mais mun na justice am nu muy doxee. Sabassy Faye mënul juger une affaire concernant Ousmane Sonko surtout dans en matière électorale il pourrait gérer son son divorce ou ses ses, ses procédures familiales amul problème mais lorsque il s'agit d'une question électorale qui est-ce que mën nga ma wax fay tey la l'inscription ou non d'Ousmane Sonko n'intéresse pas son son son frère qui euh, qui maire de Ziguinchor noo ma ko wax. mais mais non ma mais mais respecter ce juge. non je ne dis je ne dis c'est un homme qui a prêté serment. oui il a fait, il c'est un homme qui est conscient de sa responsabilité. c'est un non peut-être qui a de la probité. c'est un homme qui sait faire la part des choses. Euh, euh c'est-à-dire euh, dans ce genre de situation. Maïmouna, on fait confiance. Maïmouna, il, il s'est en acceptant en jugeant cette affaire-là il s'est trompé il a commis une faute disciplinaire loolu moom. mënu kenn mënu ko dindi. voilà pourquoi d'ailleurs maintenant j'ai vu maintenant après voilà que l'UMS euh, a en communiqué pour fustiger un peu euh, le fait que l'AJE euh, def benn communiqué moom tamit donc ñu si ñu ci ñu si émouvoir xam nga Sénégal dafa toll foo xamante ne c'est vrai que depuis bu élection jegesee chacun essaie de jouer un peu au au au au muscle chacun essaie de jouer euh, de de de d'être pour être perçu pour comme nit ku courageux nit ku am fit nit ku comme ku pare pour défier état. foofu am na ñaari point en tout a une am na ñaari point yi ma en tout cas le gars il a am na hmm. ñaari point yi ma bëgg a développé benn bi muy justice muy homme politique yi muy bépp sénégalais personne n'a intere à affaiblir l'état parce que état ñun ñëpp la sans état y pas de Sénégal donc bu kenn jaay ngóora pour rek ñu ne la yaa yow waaw góor yow yaa am fit yow yaa yow yaa yow yaa te quelqu'un de courageux justice doxee noonu kenn du acté noonu le serment des magistrats interdit d'ailleurs sax nga am genre genre euh, euh, positionnement yooyu li nga war a bu fekkee magistrat boo fa tegoon à la place de monsieur Faye day désister wu day récuser wu ci dossier bi ça j'en suis persuadé parce que xam na très bien que décision bu mu nar a rendre nii am na conséquence directe sur les intérêts de son frère bu mu bokk ndey ak bàyyi dëkk moom même kër alors que l'article 223 interdit mais non oui responsabilité oui. c'est sa responsabilité mais il n'a pas le droit de rendre de de de saisir de ce dossier là loolu mënoo loolu mënoo ko dindi loolu moom mënoo ko dindi et d'ailleurs sax c'est parti pense je pense c'est partie des raisons pour laquelle l'AGE a retiré même sa sa procédure de récusation parce que li à l'évidence moi je peux mais pourquoi dossier demee à la cour suprême cette décision sera sera ah, rasée. léegi décision sera annulée. parce que elle n'est pas conforme au droit. loolu la la wax.